moo fa dëgg fa neex yàlla kontaan nan waaw parce que yàlla mooy indi ndam mooy indi euh, defet te yàlla tey ji dogal na tey ji mu jox Balla Gaye defet mais diggante xale la ak mag mais Balla yàgg na noo jox tàkkusaan bu ne tey nekkul tey danoo ñëw rek mu jox ñu tàkkusaan ñu war ko mere wala lii parce que dese nan dese ñu trois kon trois yooyu te yàlla mën na ne see may ndam man di ko wax waa géej waay découragé wuñu si moom de te tey tiituñu si moom tiit si yeneen combat yi parce que tey jii nii Boy Niang làmbañam rek tax na mu daan làmbañam parce que yow un deux trois nga war a taxaw si digg géew bi ngay di daw doo taxaw Boy Niang avant gars yi di avant gars yi di lii combat Boy Niang Balla Gaye pare na bu yàgg moom bu taxaw di njib njib njib njib njib ci làmb la bokk d' accord nan d' accord nan mais affaire de fecc affaire de ngéwal loolu moo boo xam ne dafa dégg yaa ngi dégg mais ñun ay yoo xam ne dañoo dégg la xam nga waxoon naa ne ci combat Balla Boy Niang ba Boy Niang 2 yaa ngi dégg moom géwél géwél bu dégg la mais ñun ay géer yi dégg mais lépp loo gis ne dafa ànd ak dal ak tey foot nag mooy am ci lépp foot day am ci compo école day am ci lépp mais tey Balla Gaye tey dafa def foot d'accord nañ ñun waa Guédiawaye parce que may nañu tàkkusaan bu ne ini nañu façon victoire bu ne. mais bi ngeen wax naan ay Balla Gaye dafa màgget wala mag la léegi est-ce que nekkul da ngeen bëgg salte defet boo ñaawi. eh màggetul de Balla Gaye ba tey mi ngi si nekk état xale daa fekk ni tey jii am nga fooy toll yàlla da may yaram xool ko ci saakees xoolal Sa Thiès jamono ji toll ni mu toll moog Boy Niang moog Balla Gaye nii déggante bi lu ñu ëppante bëriwul yaa ngi dégg Balla Gaye nekk gu mag xale bu ndaw la lu def si làmb gisuñu mbër bu ko fi def man de loolu laa jàkkoon Balla Gaye lu def si yàmb gisaguma mbër bu ko fi def ci kal si làmb man te muy muy daanu ak muy ñàkk daal lépp ñun ñu ngi ñun waa géej waay duñ découragé wu lu ma jëlee Boy Niang 2 mii nii def ko sama roi des arènes ne Balla Gaye ba tey mi sama roi des arènes yàlla dogal na ni benn am muy Boy Niang yaa ngi dégg bu weesoo boo Niang 2 amul beneen mbër boo xam ne samp na taxaw fii ma ne ko roi des arènes nga mais Balla Gaye moom saa su ngi ci ginnaaw waaw. mais daan bi saa yi daf leen fekk si signature duma leen signature bi dem Issa duma leen daan leen ba pare en plus ñëwaat combat bi jeex ba ku ma fi ñu ko ne dinañ duma ba léegi. non géwal la yow géwal kan moo ko ëpp laa maj foo ko fekk day ngebetu boo kebetu Boy Niang géwal la ñu d'accord na ni mu waxkat la. waxkat waxkat ay garabam te ñoom booñaa bu ñu feebaree boo jëloon sowu bëy toog ko seen gémmiñ dañuy wér kon xam nga ni ñooñu ay géwal la te Balla Gaye toqantoo ñu ko sowu bëy ndax nekkul géwal mais Balla Gaye loolu def ne la fa biiki ni noonu la def Tyson fekk mu taxaw mu ko yaa ngi noonu dem sa doxul taal yi dinaa la duma dinaa la daan waaw basa moom yoo doon nomba baat léegi bu ko neexoon ne ko sa nomba baat bi Balla Gaye yoo doon nomba baat bu xas bu affaire xas la mais boo ñaa combat bi di si riñ làmmiñ de toro daan leen lu rëy tamit non lu rëy moom nanguwuñu ko moom daanuñu Balla Gaye la la fi si woon Modou Lo Balla Gaye la def keneen ak keneen ju ay juutal ay juutal la fi defoon kon boo ñaan moom ba tey juutal boo ñaan daa ah, ba tey juutal Balla Gaye daa daan ba pare rek toog na dee toog si kawam la rek la waay. fekk fa fekk mu tëdd mu am lu ko ay kàddu yu ñaaw ba pare dem bàyyi ko Balla Gaye naa ko may ma loxo ma jóg. booy ñaan lu koy dóor mi ngi ñëw saakees bu paree si kee rek si ah, kee. saakees saakees dañu dañu njëkk a dóor dañu rebaas waaw loolu garaaw loolu boobu saakees boobu doon soogal lii rek mais day ñëwaat wallahi day ñëwaat waaye yow. mais daal bettu leen. bettuñu ñun Balla Gaye lu mu def duñu bett beetuñu daan bi moom bi dëgg fa neex yàlla te duñ découragé wu. da nga xamoon ni euh, daan. non xaw ma woon daan man ma découragé amoon naa confiance dëgg dëgg dëgg dëgg si Balla Gaye ba si mee ko njëkk am si moom confiance waaw. bëgg nga soxna maa ngi leen di fay. maa ngi tudd Fatou Bari. Fatou Bari waaw. combat bi ah, lu waroon a am rek la. moom bu ñëwee. da ngay xam ne defete ñëw rek yàlla mooy maye mooy xañe dem booy ñaa may xañ ñu duñ ko jàppee dara. mais xañ moom moo ñaaw dóor leen pare daan leen. ñaata nit lañ fi dóor daan ko. arène bi wa yooyu paase na démb la. waa léegi nit doo doo fecc ko lere lu paase démb danga koy fàttaliku tey boo bëggee avancé waaye duñ jël démb rek teg ko fàtte tey mënu nekk dañoo xam ni Balla Gaye daan na fi ku ne ku ne la fi daan jël bu tàkkusaan bu ne defal na ko waa Géejawaay kon démb bu defet ñëw dañuy xam ne defete ñëw rek ak yàlla mi maye moo ñu xañ may booy ñaa beneen yoon bu ñu amee combat yàlla may ñu xañ ki ñu bokkal incha allah. waaw di ngeen amaat ndam <laughs> fu mu toll nii moom. Balla Gaye rek waaw waa Géejawaay bay naan baal dafa war a bàyyi dem an may xar bi jigéen mu ne a Gaye dafa war a bàyyi parce que moom a chaque fois Balla Gaye bu daanoo day am lu ko naqari. Hmm. ah moom xelam la wax waaye ñun suñu xel wax ñu Balla Gaye mu bàyyi bëre de waaye ñaata mbër fi takk ngemb nag li Balla Gaye am kan moo ko fi am benn mbër amu ko fi wax dëgg yàlla bu dëgg rek neexee kan moo ko fi am kenn amu ko fi macha allah. démb noo saanee làmb yi ba ngay saan nga ni Balla Gaye mën na ko daan. ba léegi nii jàpp naa ne Balla bu ñu ko joxaatee Boy Niang day daan ñaa Niang déggoo man la bisu daanu bu ñëwee yàlla moo la xañ may ki nga nekkal démb bisu defetam la yàlla moo ko xañ may booy Niang ñaata nit a daan ngeen du jugee seen kër di ñëw ci arène bi di jàkkaarloog Balla Gaye mu lay daan waaw loolu noonu la rek yàlla mooy may mooy xañe waaw. jaabe lay nuyu. lay fay. naka la. Asou Diop. Asou Diop looy wax Balla Gaye. xanaa gërëm ko rek. sant ko rek. say ñaan yàlla rek mu dolli. ñun lii jaaxaluñu lii ndax booy ñaan moom itam bàyyam ñaata yoon la ko bàyyi Balla gay def bàyyi Balla Gaye ñaata yoon la daan kii bàyyi booy ñaa kon ñun lii jaaxaluñu sooba yàlla bu amaatee dam yàlla da koy mayat leneen la mu dàq lii sa tey lañ ko gën a bëgg duñ ko bañ benn yoon ndax guddi gu ne defal nañ ko bu ëllëgatee buy buy bëri bu mu xalaat la ko kee di may na xalaat ab demam ba yàlla yàlla dina ko mayat beneen dam sa ñun du ñu daw mukk ñu daay man yaayi Boubacar mi xaytam moom laa du ma daw du ma daay ba àllgay laa bëgg kaw ba ba set sa bis bu bëree ti laa gën a mën a supporté samay doom yi ci lañ gën a mën a supporté ñun xamuñu ba booy ñaar Balla Gaye lañ xam papaam suñu buntu kër la daan bëree suñu buntu kër lambi fuude fa la daan bëree ba tey ba bàyyee bàyyee maa ngi ci moom sa duma daw duma daay tey laa ko gën a bëgg bu woon bëree du daanu sax bëgg naa ba tey sa yàlla dina ko may ndam dam moom da koy am day dina ko am force bu yeboo ngeen gëm yàlla ñun géejaway dawuñu de dawuñu daayuñu ki ñu bëgg moom lañ bëgg ba tey ndax géeja waaye géejaway la sa ñun ku bëgg nekk géejaway géejaway lañ bëgg ba dawuñu daayuñu ñoo ngi. dañ ko jox maire maire géejawaay. ñoo ñoo ngi fi na ñëw. ñu may liggéey waaye ngi fi toog di ko xaar ne ñoom bu ñëwee fekk ñu fi ñun ku fi ñëwit bu ñu neexul doo fi toog sa ñun Balla Gaye fiy toog moom lañu yaakaar tey ba ëllëg sa moo fiy toog bu doon won na nit sax defal nañu ko ba tàyyi loolu man maa la ko wax Balla Gaye gisuma lu ñu defalul ci làmb ji bu doon wan na mbër ba tey wan na mbër léegi boo dégloo ci rajo bi dégg ñun Balla Gaye duñu duñu ko duñu daw duñu daay de fu mu aw rek ña nga fa ñun ñoo liiru jaan ñoom ñoo ànd sa fu ñu aw ña nga fa fii quartier liiru jaan la lu fa aw rek ñoo nga fa dawuñu daayuñu gëlëmuñu waaw loolu rek lañ bëgg. soxna seen laa tudd seen. ah doomu baay ah seen cukkali. seen caali. mais yab nag fekk Sa duma fekk Balla Gaye moom ñu ñu bokk même kër mu jàpp mag duma rakk duma loolu metti de. mais ñun loolu jaaxaluñu. yeneen li façon façon ngoon bu nekk am nañ ko fi Balla Gaye mbégte bu ne indil nañu ko fi ñun bu ñëwee ba bëgg làmb grâce à Balla Gaye moo tax ñun defet bi metti wuñu de parce que lu nekk géej waay gii Balla Gaye may nañu ko suñ ko doon dóor chaque jour muy daanu bu jógee moom la ñuy àndal ñun amuñu ko dul Balla Gaye ñun géej waay lañ am Balla Gaye lañ am amuñu lu ko ëpp ñuy wax ne Balla Gaye dafa war a yàlla tere mu bàyyi du bàyyi day defar war rek delluwaat place am du bàyyi tracé kii di Eumeu Sène amul leen si tiitaat. Eumeu Sène amuñu lu si tiit. Eumeu ko ñaari yoon de. amul luñ si tiit ñun amuñu luñ si tiit Balla Gaye chaque jour bu dee bëri di daan moom la ñuy àndal saa bi dem stade topp ko wala ñu ñu jóg to ànd ak su bëree daan moom la ñuy ànd saa bu bëree daan moom la ñuy àndal moom la ñu xam amuñu lu ko ëpp. Balla Gaye à vie. Balla Gaye à vie. parce bu muy daan Yékini boobu Yékini digg na la tolloo ba muy daan ay Tyson di ko taxal fii suuf. waaw fu mu tolloon suñu fa la tolloon tamit Balla jeexagu de c'est que dañ koo sot Balla màggatul dañ koo sot lamb ak sot ñoo ànd ñu yàgg nañoo ñun ànd di sot di sot yeneen bër kooku bu ñu sotee garaawul ay site ak ñoom ñëpp dañu sot garaawul ah après ñoom dañu xaar seen wàll site moom mën na góorgóorlu parce que xam na ne lamb ci kolee fekkante moom boo ñaa bis day ñëw mën nañu bëri kon juróomi faral boo ñaa bu di ko wane géej waay moom la ñu tiitaroo amuñu ku ko ëpp amuñu ko sut waaw lu mu ñu defal yeneen bëri dafa lañ ko seen yeneen kàcce Balla Gaye def na lu ne dara dara safuñu Balla Gaye dara safuñu lay de mu daanoo mu daan la ñamale bu daaw dañuy mer kontaanaat. am am lu ñu naqare am lu ñu metti Balla Gaye tey bii ñu ko daane reer ñu démb añu ñu ndekkiwuñu dañoo am lu ñu naqari bés bii ñu ko daane lañ ko gën a bëgg tey lañ ko gën a bëgg. Balla Gaye du moromam sax da jee dal rek da cee faqasalu dong. mais mu daan rakam daan maanaam. ma ne da cee faqasalu laa la wax bëgguñu bëgguñu ko. Balla gay moo la ñu bëgg. Balla gay moo nekk ci suñu xol yi. mais daan leen. ma ne loolu làmb la làmb moom ku bañ daanu doo bëre soo bañee daanu doo bëre ku bañ laal suuf doo doo bëre. dem na nga saanee combat aw am am naa lu ma xari aw ma lu man ma naqari ndax Balla Gaye li fi def moom du ko mës a am Balla Gaye li mu am moom dina dund ba dee du ko am. wuñ ko gis nga bu daan bëre ñettal bi étage benn mbaaru xar fa toog maa xar ndax bañ a dégg buru bi. ndax bëgg guma ko bëgg cafeel gu ma cafeel Balla barkam xamet Balla maa ko man man ni ko yaayam bëgg maa ko maa ko raw man daa mel ni maa ko matu waaw Balla def na defal nañu jaloore yu nekk géejawaay Balla def na fi ndam lu nekk waaw duñu xaadi benn yoon géejawaay gii Balla def na fi jaloore yu nekk waaw ndam lu ne Balla andil nañu ko waaw ca kaw ca kanam rek ba lii nii du tax ñu bàyyi Balla de day tax ñu gën a téye Balla barkam xamet Balla ñun ñoo ko bëgg ñun waa géejawaay mais boo ñaa dina sonal dafa daan rak daan mag. xoolal ba boo ñaa man ña laa sant man mii de wax ak yow boo ñaa man ña laa sant kom moom waaye faralu ma ko ki ma dëkkal di dëkk Géejawaay gii kooku laay faral waaw daan mag daan rak xam ne lu yàlla dogal la kenn mënu ci leen mënu ak mën tamit waaw ah mënu leen li rek lu yàlla dogal rek waaw lu yàlla dogal rek man ñang laa sant ko booy ñaa waaye man Balla laa faral ndax Balla laa bëgg ndax maa dëkk Gunaas Balla dëkk Géejawaay waaw waaw. maam bëgg Balla rek bëgg Balla rek bëgg bala rek jël bëgg Balla rek nag la yàlla dogal. lu yàlla dogal kenn mënu ci dara lu yàlla dogal kenn mënu ci dara ndax di nga di dox yow sa ba yàgg nga daanu. di nga dox ba yàgg nga daanu ñun nag bàllal rek. dem saano combat bi ah. dem saano toog toog toog ba mu ba tas toog ba mu tas rek bëgg bàlla rek bëgg bàlla nelawuñu nag yal na ko yàlla jàppale di ko jàppale di ko jàppale di ko jàppale ba lii lépp jàll ndax itam yàlla moom lu mu dogal kenn mënu ci dara ndax bi mu ko jàppee mën naa daan. waaye lu yàlla dogal rek walbatiku waaye nag tax nu bàyyi de noo ngi ci rek noo ngi ci rek te bu nu bat bu nu demee Touba sax fu nu ñaan bu nu demee Porokhane fu nu ñaan ñaanaale ne ko sa yaay sa yaay ñoom ñoo ci yow te du nu xàjj du nu tàyyi du nu tokki waaw. maa ko waaye na nga yëg ne lu yàlla dogal kenn mënu ci dara dogalab sunu borom la rek waaye Balla moom li ko war ci gunaas gi dawal wataam ba ñëw fii ci gunaas gi tolloog fii ci hôpital dugg ci koñ ñi xam ne nooy Balla Balla ndeyam ji ko jug sax noo ko gën a bëgg ah démb nag am na lu na naqari torop waaye nag loolu la yàlla dogal ku bañ lu yàlla dogal nag doo sonn sab xol du jeex ku bëgg lu yàlla dogal nag danga xam ne lii yàllaa ko dogal waaye moom na nga yëg ne Balla moom suñu xol jeex na démb torop ci moom ndax boo sa sañoon mooy daan waaye nag mënoo saa boo demee saa boo rëbbee rëy waru mag ñu jëkk ña mënta ne waaye nee ko noo ko sant ba ca kanam yàlla te bëgg ko lool nag yemale wu ko mel na mbër te su mbër sunu mbër yaa ngi nii booy ñaaya ngi fii lay solo waaye danoo bëgg rek ne sunu mbër yi noo dëkkal te mbal fa dem rek tol ne mu def noonu waaw. démb démb sànq nga làmb ji ba ko sànni amoo. maa ko seetaan. amoo pression amoo loroon ah na lu may tiit kay ndax moom ca première ba xam nga xam ma am na lu ko def. te premier bi sonn naa ci lool sama xol jeex na ci nag rek yàlla ko doon yal na yàlla ak sëñ Tuubaa def jàmm saa ko amate rek yal na daan waaw loolu la ñuy ñaan rek nee leen boo ngeen demee ne ko yaa maru ba njaay yaa dégeen njaay ñoo jàkkaarloo ko hôpital la daan hôpital bi hôpital bi rabaa bode waaye nekkoon na ñaari ñaari meer yi ñoo la bëgg ba ca kanam yàlla Marouba Ndiaye laa tudd kii Degen Ndiaye la tudd mooy sama mag jëkkëram mooy mag sama jëkkër topp ci ñoo bokk kenn kër gi ñoo ko topp jàpp waxuma ne dara waaye sunu caat mi kii yaayam mooy ñettalib kër gi kii ngeen àndal yaayam mooy ñettalib kër gi fii la juddoo ah kon nag nee ko xam nga ne kon bëgg nañ la daal ak jooy ba léegi. ah non musuma jooy nag franchement jooyu gu ma de jooyu ma ndax ndax baala ndam bu nekk indi lañu ko ñun su fekkee ñu noo gore bëgg Balla rek te muy dëgg suñu ñu defetu Balla Gaye victoire la suñu parce que amul benn victoire bu mu victoire mu la ba ñu indi loolu xanaa kay dafa nekk si fin de carrière rek mu gën a defaruwaat rek soo affaire rek mu ñëwaat. su nekk da ngeen di jéem a yàq defetu Boy Niang moo tax nga dafa nekk si fin de carrière Balla Gaye la ba léegi. non Balla xale la Balla ngay wax xale la Balla xale bu ndaw la soo déggee maanaam fin de carrière parce que moom dafa ñëw ba mu muy toll si carrière am dafa ñëw jël ay moroomam jël ay jël ay maasam jël ay magam def def def lu si làmb lu kenn deful si làmb tey gi fi booy ñaar tool ni booy ñaar réevam bu réevam bu ginoon a kawe si addunaam mooy mu daan Balla Gaye te yàlla defal na ko xam nga lu ma la wax kon ñu koy ñaanal ndam bi jik ko mu sedd guy Balla defaruwaat rek ñëwaat si làmb parce que dese na ko. mais dafa demaat si beneen combat bu mag moo ko Eumeu Sène baadu ah mu ma ëmb moom wax dëgg yàlla xam nga man lu may wax rek man Balla sama sama sama fans la sama mbër la man damay nangu lu yàlla dogal si ni dama koy nangu te Balla yàlla daa dogal si moom xëy na benn waaram pikin la féete mais amul kenn kuy jóge pikin sax ñëw di bëreeg Balla ñeme Balla amul xanaa kay da ngay bëreeg Balla ba gañe ko ba pare doo nga xam ne gañe naa baala waaw soo xoolee démb booy ñaa nu mu réagir nga xam ne gañe bu mu gañe Balla kawe na njottam parce que xam na ne mbër kaamil lay bëreel waaw ok. dundee combat bi démb tur bi naka la. Ndeye Fall laa tudd waaw. nu dundee combat bi démb. ah combat bi démb metti na de metti na waaye dañuy gëm dogalu yàlla loolu la yàlla dogal te xam ne tàkkusaan bu nekk Balla defal nañ ko fii wax dëgg yàlla bisu ñàkk nag su ñëwee kenn mënu si dara lu lu yàlla dogal la si moom rek di ko ñaan yàlla rek mu gën a defaruwaat. démb xanaa réeroo de. démb moom réeru ma kenn réeru. réeru ma noonu laa tëddee. ak xol bu naqari sax waaw <laughs> waaye loolu la yàlla dëggal ko <laughs> yàlla ko ci loolu la yàlla dëggal di ko ñaanal rek du amaatee beneen combat yàlla may ko si ndam te mu jik ko mu seddu guy boo ñaar tamit eh, victoire bi eh, jik ko ah moo ci des de ah moo ci des moom kenn mënu si dara <laughs> waaw